je le dis je le répète doo xool lu neex benn nit wala ñaari nit wala lu naqari benn nit wala ñaari nit dangay xool li nga xamee ni moom mooy ensemble bi li leen di jëmale kanam góom boo koy faj boo koy xool yi day metti day saf de mën ngaa am dagg-dagg gaañu nii ñu ne la boo koy faj dañ ci def alcool safoon na ba pare de boo sottee alcool mu mu gën a saf mais safu alcool boobu du yàgg mais lan moo ko tax a jóg pour rey microbe wala leneen loo xam ne mën na la indil beneen gàllankoor ëllëg li tax may jël exemple ci loolu mooy aujourd'hui euh, gis nga demal bitim réew ci yéen waxuma bit su ma nee bitim réew mooy lu wër réewum Sénégal nekk fii nii nii rek ci Afrique am na yenn bërëb yoo xam ne yenn réew yoo xamee ni anarchie bi am fii ci réewum Sénégal du ñu ko fa nangu xamul tax xeex nañu ko ak commerçant yi xeex nañu ko ak euh, je sais pas nii euh, di dawal moto xeex nañu ko yenn secteur yoo xamee ne dañ nekkoon dans légalité xeex bi metti woon loolu mais finalité yu xeex bi mooy tey seen dëkk rafet na seen dëkk baax na nit ñi ñu ngay bëgg ñëw di investir gis nga c'est pas une question de xeex marchand ambulant dama leen di soutenir sur tous les plans mais il faut quand même que ñu wax la vérité et c'est ce qu'a dit le le premier ministre Ousmane Sonko nee nag ay la yéwén lépp mën mënu ñun état lañu en tant que état nag mënu ñu privilégié diw donte bokkoon ngeen ci ñu doon xeex pour ñu nekk au pouvoir mais ça veut pas dire que da ngeen def am également lu leen neex j'ai donné un exemple sur clando tey xoolal les taximan clan ñiy def ñiy def clando wala ñu yore oto clando am na ci ay autorité ñu ne la préfet bi moom moom lii wala gouverneur bi moom mi oto ne la sax policier nangam moom moom oto nangam ak nangam wala gendarme nangam moom ato bii ak bii ak bii ñu teg ko ci circulation bi mu nekk def clando ñu fi ñëw di coow mbiram Euh, allo taxi xaw ma allo Dakar xaw ma allo Touba Touba Dakar ak yeneen ak yeneen parce que tout simplement dafa am benn secteur bu ñu officialisé muy taximan yeeg ak yu mel noonu à côté mu am ñeneen ñoo xam ne la def moom taximan ba la muy fay ci ay licence kii di def clando fay ko xam nga li kii def clando lu muy fay peut-être yenn saay mu neexal benn nit wala ñaari nit pour romb. wala nga ñëw ne ko clando nga yore mu ne la yore ma clando sama oto particulier la mais boo tegul ay charte ci ñi nga xamee ni bokkuñu waruñoo bokk mais ay la yoon waroo bokk ñu ne la marchand ambulant am na zone boo mën a yem wala am na lu ñu woowee une zone marchande boo xamee ni foofu bu ñu ko créé woon ne ni tey Colobane par exemple marché la dindi nañu tali bi route goudronné bi sax tëj nañu ko marchand la ñuy bàyyi ñu dugg foofu ku bëgg jënd ñu tegal la sax parking bu sori nela ku yore oto gaareel foofu sa oto nga ñëw dox ba dugg ci biir la zone marchande boo xamee ni foofu piéton doo nga fay am sañ-sañu dugg mais boobu defar nga ko tëj nga ko je donne un exemple à fu ñu woowee Médina ñu tuddee ko le bazar au Maroc à kaza mais dañu tëj marché bi am ay policiers yu nekk ci entrée yëpp gaare seen oto loo mën a jënd da ngay dugg ci biir amul velo bu fay dugg amul leneen lu fay dugg da ngay gaare sa oto dem dugg ci biir loo bëgg a jënd nga jënd ko mu am daanaka lépp ci biir am ay ambulance ci biir parce que dañuy lal seen table ci biir marché bi bu bokkul ak ñaam ay cantine ñii di jaay or ñii di jaay nangam am ñoo xam ne dañuy lal seen serviette wala seen table ci biti ci biir marché bi ku ñëw mën a jàll ba pare ñu setal ko ba nga boo fa duggee mais tu as plaisir à marcher à fair le tour te espace bu rëy la qu'est-ce qui nous yu am genre yu mel noonu fii ci Dakar pour éviter li ñuy wooyee crise ou ay désencombrement déguerpissement euh, Rufisque déggoo fa coow de pourtant déguerpissement am na fa yenn ci ay communes yoo xamee ni ay Pastef ñoom ñoo fa jiite euh, déggoo fa coow de donte am na ñaari nit wala ñett ñuy xuloo te ce que disait le premier ministre avantière hier je pense le dimanche mooy ay yoon bëgg nañu defar mais faw yéen tamit ngeen jàpp ci defar bi te moom la leen waxaat dem mooy ni bëgguñu léser kenn waaye yéen bu ñu leen nangulee lépp mais ñu ngi léser ñeneen ñoo xamante tamit ñun ñëpp ñoo leen bokk jaboote lan mooy solution bi comme instant yi nii nii yow marchand ambulant bi da jóge sa tool fële ca Diofior parce que tool ba peut-être la nga cee am bariwul wala amoo amoo jiw amoo machine bu mën a ñoŋal sa sa tool boobu nga ne naa bàyyi lépp ñoom di jaay fii euh, euh, nuñ koy weeti euh, yore fii sa benn butiku mbagg buñ la bëggee génne ci butiku mbagg boobu mais na ñu fexe jox la matériel jox la jiw jox la loo xamee ni yow da ngay am envi delluwaat sa fi nga fi nga nekkoon c'est pas que dañuy ostraciser naan la noo génn leen noonu non parce que fii lañ bokk ci lañ bokk ci réew mi lañ bokk Euh, tey informel bi la muy am wala la muy liggéey moo ëpp lu ñu wooyee secteur formel bi la muy liggéey ñi nekk ci informel moo ëpp ñi nekk ci euh, lu ñu wooyee lu formel lan moo taxoon ni indi woon fi benn ministère boo xamee ni dafa doon jëlee toxal diggante informel pour dugal la ci formaliser la pour justement parce que informel boobu moom moo fépp c'est pas tout le monde qui est lésé dans cette am na ñuy nangu ne ni effectivement fi ma nekk baaxul les artisans de l'automobile ñu ngi may dégg fii ci stade Léopold Senghor wala feneen mais cala est-ce que rafet na ci dëkk bu bëgg rafet dëkk bu bëgg avancé naka Senghor doon waxee naan Dakar sera comme Paris en 2000 est-ce que rafet na ci bopp koñ bii ma nekk nii nga jël ñetti auto teg fa ñeent teg fa garage mécanique boo xamee ni nu la neex nga fa def huilu huilu moteur bi di fa tuuru yàq chaussée bi Eh, carcasse oto yi nekk fa nga jël ay pneu teg fa yeneen ak yeneen teg fa mais taaru dëkk bi ci boppam ngay yàq pourtant da ngay liggéey de ci légal nga ne maanaam nekkoo ci lu bon mais est-ce que mënuñu laa organiser ba yóbbu la foo xamee ni ku soxla day ñëw fekk la foofu mu am commodité yi nga xamee ni mën na mën na la accompagner am toilette am leneen ak am na ñoo xam ne demal ci yenn garage mécanique yi xam nga teg toilette. tour toilette lay doon rek benn sàkket lañuy jël samp fenn def ci benn genre wu kii jël benn butéelu ndox samp fa teg fa ku ñëw dugg ci toilette ba ci réew boo xamee ni danga ne da ngaa bëgg avancé nga ne yow fii may sa capital amoo fi dara lépp yàqu lépp ñaaw bul weesoo centre ville li ñu woowee plateau ci yenn ci ay bërëb tout le reste c'est daanaka lu lu ñaaw la mais réew bu bëggee avancer fois il faut avoir le courage de prendre certaines décisions c'est vrai que comme le fait l'a fait le premier ministre courage su jël décision teewul nga waxtaan ak nit ñi ne leen lii de laa bëgg a def mais dama bëgg ngeen jàppale ma ci ndax seen bopp ngeen di jàppale bu leen organiser defar leen ñu seet fu ñu leen mën a teg ay la yoon dem leen fa boo leen fa demee nit ñi ñëw fekk si leen fa loolu yëpp tamit li may wax naan sànq euh, sur le plan socio anthropologique également waxtaan lay doon pour permettre au Sénégalais également ñu am ci seen xel ne ni waruma toog rek la ma soxla ma am ko juste à côté de moi non da nga war a toog ne ni man la ma soxla mécanique la wala mbirum jënd la wala mbirum mbirum jaay am na bërëb boo xam ne fa laa war a dem pour pour jàppale ña fa ne jàppale sam bopp jàppale dëkk bi également aujourd'hui koñ yëpp am marché yàpp sa jëkkër xaw ma marché xaw ma table yàpp sa jëkkër lañ ko woowe non où tu mais une table teg ci say légumes euh, ak euh, yu ni mel ki génn këram dugg dem jënd cala dem jënd fa benn batan seek euh, yu mel noonu ci bopp kañ bi mais est-ce que niñ ko tegee baax na est-ce que fi ñu ko teg baax na est-ce que amul leneen lu muy indi boo ko dindee ñu ne non yaay nogay tablam bi yàq nañu ko te pourtant mu ngi fi depuis dix ans jeune di dis pas qu'on le faire ipso facto ou euh, parce que kiy dem di jënd marché peut-être que day xëy amul amagul dépense mu taaba taaba ko lijjanti ko peut-être le temps que muy daw ba marché pikin ba ça peut prendre du temps heure añ dina weesu xale yi jàngi nañu war a wàcc xiif nga ne bon am na taab bu nekk ci bopp koñ ba naa fa jënd ñett wala ñeenti légumes ñëw defar sama biir añ sama biir kër c'est également des choses yoo xamee ni il faut une réflexion globale mais waxtaan boo xamee ni tu le fais avec tout le monde pour permetre que ku ci nekk xam lan mooy sama responsabilité lan laa mën a bàyyi pour defar dëkk bi jub jubal ci moom lañ jël prôné ko pour cela il faut que tout le monde puisse accompagner cette perspective là nangu bàyyi lenn si ñun pour mën a permettre peut-être que Alamine wala Wakil mën see bénéficier également peut-être à détriment wala dina metti ci man mais au moins dinaa am ñaari nit ñoo xamante ne ci mën a am bénéfice. d'accord sort sort beneen point Lamine Senghor sort